lu ñu fi def rek sëñ bee ñu ko sant ab lay ba mu ñu yebalee waxuñu bu ngeen demee ngeen def nangam ak nangam ak nangam dañ na bu ngeen demee teg naa lañ ci loxo sëñ bi lu ko yittewoo rek defal leen yàlla dogal màggalu ren ko màggal yi passé nekk ci digg nawet jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy séentu di ko dund ci période màggal gii yi ponk ñoo ko ŋànk mooy mbedd yu dagg nit mën a jaar mooy ndox yu taa ba nangu kër yi nit ñi mënatuñu fa dëkk mooy tilim ak xeetu calte yoo xamante nekk na ci dëkk bi war na fi indi ay gàllankoor ñi nga xamante dañuy ñëw pour màggal si loolu moo tax ak principaux yëpp mooy engins yi ñu indi muy bulles yi di gradeurs yi di compacteurs yi di pelle mécanique yi yëpp dañ ko indi pour defar ay liggéey yi nga xamante ne moo jaar ci yoon yi nga xamante ne dañoo am ay jafe-jafe fat ñu defar leen ba euh, ñi nga xamante ne dañuy ñëw di màggal si duñu am jafe-jafe dugg ci dëkk bi génn ci dëkk bi mbedd yi nekk ci biir dëkk bi di assurer circulation bi ñu defar ko ba nit ñi mën a dem ak dikk ci jàmm ak salaam ci nu mu gën a ñoŋee ñu defar ay travaux de terrassement dëkk bi dafa bari foo xamante ni fii am na ay xóot-xóot am na ay jafe-jafe engins yi yëpp terrassé nañu fu nekk quartier boo dem ci Touba Ecotra taxaw na fa foofu amoon jafe-jafe indi nañ ko suñu engin defar nañ ko problème bi nga xamante ni nekk na problème bu dëgër di di ndox mi bu ngeen doxantoo bu ñu paree di ngeen ko gis bërëb yu bari nekkoon ci ay jafe-jafe ba ay ña dëkkoon commencé woon di génn. am bërëb yoo xamante ne jàkka yi sax dañ ndox mi def ko nangu woon yàlla defal nañu ba si suñu taxawaay foofu yëpp liggéey nañ fa liggéey bu mucc ayib ba quartier yooyu yëpp ak bërëb yooyu yëpp ndox ma fa ne woon jëlee nañ ko fa mbedd mi sëñ bi wax na leen importance bi mu am ndax ñëpp ñi nga xamante ni dañuy jóge boori noor muy Louga di Ndar di Daaru Muxti di Kébémer ñëpp fi la ñuy duggee bu dëkk bi xatee yoon bii ngeen ñu taxaw nii di waxtaan a yéen mooy axe principal bi nga xamante ni si la ñuy mën a duggee tey ay ndox daf ko daggoon ci ñetti bërëb ba oto mënatu fi jaar loolu ba ñu yegsee sëñ bi ah bu ñu amoon daal li ñu gënal mooy mbedd moomu ngeen defaraat ko ba wote yi bu ñu ñëwee am fu ñu jaar mën a dugg ci dëkk bi ci jàmm ak salaam ndax dëkk bi dana xat ba ñu ñëwee ba léegi di premier ba léegi si la ñuy nekk yàlla defal nañu jàmm defal nañ ci tawféex ba mbedd bi ubbi nañ ko bi jóge tali euh, daaro bi dugg dugg ni ci ci ci sow wa euh, ubbi nañ ko bi jóge kaw euh, boru daaru moxti dugg ci dëkk bi defar nañ ko intersection yi ci nekkoon yëpp dindi nañ am na ay poñ poñ yu bëree bëri ci dëkk bi yoo xamante ni bi ndox mi daf ko nangu woon def nañ fa ay intervention defar nañ ko am na foo xamante ne fii dafa amoon géej dindi nañ fa ndox ma rembalé nañ ko ba taalibe yi bu ñu ñëwee daañ fa mën a daal ci jàmm ak salaam université liggéey nañ fa liggéey boo xamante ne bi liggéey bu ci ayib terrassement yi fa waroon yëpp defar nañ ko defar nañ ko ba taalibe bu ñu ñëwee incha allah seen toogin dana rafet loolu mooy li nga xamante ne moom la sëñ bi sante woon ñu ñu nekkoon ci di liggéey ñu ngi fi encore ak sëñ bi ba ñu ëllëg la màggal gi fépp foo xamante ni fi am na jafe-jafe ndax asamaan si mu ngi continuer di di di di di nawetal ndox mën na amaat ñu jële ko fi bërëb mën na am ay jafe-jafe ñu jële ko fi engins yi dara du fi bouger personnel bi du ñu bouger dinañ taxaw ci loolu ba bu ñu ne ëllëg la màggal gi ñu taxaw déglu bu màggal gi weesoo ñu dellu siwaat defaraat dëkk bi ba mu euh, li li lu ci yàqu ñu yàq ñu defaraat ko balaa ñu delloo suñu bagage euh, Ndakaaru incha allah. màggal gi waaye bu dul loolu amuñu heure amuñu wax fi fi ñu yem kon nag ma di ko xamal ñëpp ne Ecotra bu ñëpp defoon na ñëw kon léegi dëkk bi yomb jàll ba léegi rek directeur Assane mi ngi may wax ay yéene yu président Abdoulaye am ak xalaat yu am yu am solo yoo xam ne li muy ñaan mooy ñu dem fi di gën a jëm kanam di gën a man kattan ngi di yokk bañ man koo def waaye buñ ci àggee danañ xam ne dëkk bi ku ne am na ci wàll xam ne caaxaan defu ko waaye président Abdoulaye yéeneem rëy na lool. nañ fekkee ñi ci des président Macky Sall mooy jiitu wax gouvernement bi nañ ñëw dañ mën lépp ñu koy def maire yi Touba mi ngi ñëw million lépp mi ngi koy def euh, Touba ji kan mi ngi ñëw lépp man lépp mi ngi koy def day waaye wér mu sëñ Touba mel noonu dëkk bi mel noonu dëkk bi bu ñu seetee téeméer ñu toll nii te boo boo ko jàmm jaar bala ngi bala nga ko génn mat quinze kilomètres la wut caaxaan foofu mel ne boo jógee Mbacke jëm Daara Moussi boo ko duggee dëkk bi bala nga koy génn da nga boo jógee yoonu Daara ma Touba Fall bala ngeen dëkk bi dëkk ngeen dëkk dox trente kilomètres parce que jumaa ji ak fu fu nekk fa mu mën na quinze kilomètres kon loolu xam nañ ne mbirum suñu borom la mbirum suñu borom nag euh, doomu aadama bi yéenam lay am. ak jëfi kattanam ak yàlla àggalee ko yéeneem waaye mën nañoo rafet njortu ca ne yàlla dana àgg lépp ci may may yi may Sëriñ Tuubaa amul fu muy yem lépp dana àgg kon képp ku ci jàpp mën nga rafet njort xam ne Sëriñ Tuubaa moo lay fay fii ñu nekk moo lay fay boo liggéey kon man mi leen fi nekkal nag kilifa yi nekk fi Sëriñ Muntaxa nekk fi Sëriñ maa ngi leen di sant seen tur di leen gërëm di ñaan rek yàlla rek Ecotra jëm kanam